en tout cas ay euh, lu ñu leen mën ti tuddee influenceur autant quand même de millions euh, ñu koy distribuer ci réew mi te kenn yëgul kenn tinul est-ce que du yaxanal buñ ko defoon ci laal koy yëg nañ tin nañ ah dañu ko laal koy yëg nañ <laughs> ah, <laughs> vraiment euh, Mame booy dégg yenn contrat yi wax dëgg yàlla da ngay naan que régime euh, Macky Sall bi jeex am na ñoo xamante ni waroon na leen jaral seen bakkan. waaw non c'est mais c'est exactement ça parce que benn instant dangay toog ngay gis ñenn ñoo xamante ni dañuy défendre le pouvoir de Macky Sall. mais ak benn ardeur bi. te yow doo comprendre lan moo war a mën a expliquer loolu. parce que défendre le pouvoir de Macky ay temps daanaka mooy défendre la diable rek. être avocat du jàpp mhm. parce que amul lenn lenn lenn lenn luy dëgg loo xamante ni pouvoir Macky Sall doon na ci dox. Mhm. mais donc xam nañu ne pouvoir buy doxi noonu pour mu am ñoo xamante ni dañ koy supporter wala ñoo xamante ni dañ koy nëbbal ay ayibam il faut que ñu am fu ñu jaar ak ñoom. tout simplement te Pamata li ci gën a scandale. maa ngi mhm. dégg ay <coughs> ay ay ay ay responsable ay groupe de presse ñuy jéem a euh, bof justifier mhm. di naan affaire bi ñoom groupe de presse la ñu yor c'est normal ñu jox leen ko ñu liggéey ak mhm. yooyu mhm. mais kenn waxul le contraire mais Pape Matar Sénégal le le le euh, février ak janvier deux mille vingt quatre janvier février deux mille vingt quatre à quelques jours de l' élection présidentielle boobu Macky Sall élection yi mais société nationale bu ñëw bëgg laa wax publicité à quelques jours de l'élection parce que am na lu mu ci jublu. Mm, effectivement. donc contexte bi période bi ñu leen joxe xaalis bi moo gën sax euh, comment dire suspect. que mm-hmm. xaalis bi ñu leen jox ci boppam. Mm-hmm. parce que Macky Sall dafay recevoir les patrons de presse. oui ñi nga xamante ni patron de presse yi mën a feeñ. Mm-hmm. ñooñu la Macky Sall mais patron de presse yi nga xamante ni mënuñoo feeñ te ñoo gën a rëy làmmiñ mais ay contrat lañ leen doon jox pour ñuy toog di yàq deru Ousmane Sonko ak ak défendre le pouvoir tout mhm. simplement euh, l'ONAS nag moom man xaw ma ndax dañu ne xaalisu carte la nañ ko jël jox ko journaliste yi <laughs> xaw ma nu fa demee loolu mais boîte bu ñu war a lijjanti la quoi boîte bu ñu war a war a war a lijjanti la te ça euh, nekkul tey de. Hmm. Abdoulaye Wade quand il est arrivé au pouvoir en en deux mille. ki mu l'un des rares yu mu jàpp ci pouvoiru du Diouf mais bokk na ci l'ancien directeur de la LONASE parce que lu ñu ko daan meree mooy. ñoom à chaque fois que ñu am des difficultés pour faire un meeting mmh. mais l'ONAS day débloquer des millions pour le parti socialiste ñuy def lu leen neex bu ma juumul c'était Abdoul Aziz Tall mhm. quand Abdoulaye Wade est arrivé au pouvoir moom ak Mbaye Diouf bu SNCF la njëkkal a dóor ci kaso bi. Hmm. tout simplement parce que LONASE boobu xaalis bu dul jeex la daan jël di ko def ci seen campagne yeeg yooyu. Hmm. mais système boobu ñu bëgg cee nekk. comprendre nga temps socialiste yi ba libéraux yi jàll et tout ça ñu ñëw ñu ne élection yi passé à quelques jours de l' élection def nañ ay convention ay 15 millions fii ay 10 millions fii hmm. di séddale séddale boo xamante ni je me dis que xanaa maag George ñoo laalul ci dëkk bi <laughs> George de jot nga ci convention yi eh, jotuma dërëm <laughs> eh, man man kay man kay si ni ni laa mel rek dama koy gis nii rek yow sax peut-être xam naa yaa ma tane man kay tane man man man man man fu ñu ñu jëlee ne millions laa par parfois dëkk bi. day nekk fii gars yi di wax ay milliards ay millions nga ne ah lii lii lii du dëgg. <laughs> dafa benn waay bu doon déglu ay les million des PMI là bu doon joxe résultat yi. oui day naan ah lii di caaxaan lii kenn kenn gañewul lii <laughs> mais c'est vrai c'est-à-dire parfois on euh, j'en arrive à ce niveau parce que LONASE boobu ngeen di wax LONASE li kii di LONASE kii di COUD kii di port autonome. gis trois sociétés yooyu. li yàqu Sénégal ñoom la. parce que c' est des sociétés yoo xam ne ak la poste bien sûr. oui c' est yoo xam ne euh, dañ leen di utiliser comme euh, voilà. caser les les les client pour la la clientèle politique. Mm-hmm. xaalis bi c' pour organiser les meetings du parti au pouvoir. Mm-hmm. c' est pour euh, je ne sais pas féliciter à gauche et à droite distribuer les mallettes et n'importe quoi moo tax si moo tax euh, parti bu ñëw rek boo leen waxee yegg nañu pouvoir. nga commencé ku bëgg a nekk DG port loxo yi gën a yëkkatiku. Hmm. DG coude même chose donc léegi euh, de même que la LONASE LONASE nag man li ma mës a li ma jaaxal si gars yi ma dégg nii temps yi ñuy recevoir ay dix millions. vingt hmm. millions cinquante millions. man dama xamul ban liggéey la ñu defal LONASE xam nga LONASE bu muy njëkk a def sax temps Aziz Tall muy wax nii. oui kooku mënoon nañu comprendre parce que temps boobu programme PMI bi si journaux yi lañ ko doon parce que maa leen defal seen publicité. mën nañ ko justifier. mën nañ ko maanaam dañ da ngay dem ñu jox la feuille boobu rek la gars di joxe si kiosque yi. Mhm. nga nga koy génnee si journal. Euh, bu résultat yi génnee nga bind ko. Mhm. RTS da doon joxe résultat yi en direct à la télé. Mhm. ñu xam nga mën nañu ne bu ñu signé convention de deux cent millions. am nañ si droit. parce que au moins dañuy liggéey. am na justificatif am na justificatif échange de marchandise la. mais koo xam ne. Euh, joxe woo résultat PMI. Mhm. joxe woo seen affaire pari foot lañ koy waxee xamu. xbet football xamu xbet. xanaa wax bi ma ko wax sax xanaa daañu ma jox daañu ma signé convention. dama tur bi sax laa jàppul laa la. xbet xaw ma lan. Mhm. xaw ma xbet xaw ma x fu sax. <laughs> bet kay bet bet ci boppam la def xbet. <laughs> waaw man bëgg yàlla moom ma xam tur bi. ça fait rentrer beaucoup d'argent. <laughs> ah waaw xam nga ñooñu sax boo leen di boo boo leen di kii buñ koy diffuser seen rajo yi wala seen télé yi wala seen euh, seen euh, journaux yi di ko siiwal. mën ngeen ne ok faw nga ñuy fay. parce que mhm. on fait la publicité. mais benn jour journal bu tudd Fouta aujourd'hui xam mosoo dégg journal boobu yaa ngi koy dóore dégg Fouta aujourd'hui nekk am na tout terrain tout terrain ah Fouta aujourd'hui <laughs> man dama jàpp tuuri sax laa képp képp non pour man da nga joxe benn exemple lii rek ah, ah, ah joxe non parce que les noms sont aussi bizarres que bizarres que je suis en train de dire ay Fouta aujourd'hui réveil matin ku nekk di indi tur c'est mm. comme xam nga yow xamoon nga ne maam maam Góor sa saaka sa collègue la sa confrère. waaw <laughs> ah, dégg naa kooku am na rajo aussi. xam nga <laughs> xam nga comme nga affaire yi day mel ni à chaque fois bu euh, bu élection di jot. wala mm. ñu ne aide à la presse mu ngi jot. nga gis gars di créer ay journaux yoo xam dañuy bëri waaw. journaux dañuy bëri rien que pour mën a jot. ah ngay gis waa ju rek créer le réveil du Fouta. Mm-hmm. pour mën a xam ne. bu affaire bi génnee yow bàyyi Fouta yow. wax dafay di siin <laughs> benn à la presse bi ñëwee. mu xam ne euh, loo mii moo yore mooy distribué. mu nekk a ah, bul fàtte suma journal de créé mm-hmm. na benn journal. Walfadjri bi nga xam ne mu ngi nii depuis 40 ans. boo moytul maax yaa crevé de foot boobu yéen a yem lu leen li jox <laughs> donc koo xam ne da nga 40 ans ak koo xam ne. des fois mu ëppale la la parce que tout simplement il a des relations un peu truc avec le directeur ou bien le mm-hmm. ministre de l' information bi nga xam ne mooy distribuer à la presse. Mm-hmm. Euh, euh, mbir mi tamit noonu la demee sa LONASE là c' est comme sa mm-hmm. ñoom dañu xëy rek yow da ngay ñëw maam biram créé na benn affaire fii. nga nekk waa d'accord naa la jàppale convention convention boobu fekk maam biram woyu la bindalu la defalu la dara yow daal nañ ko neex euh, torpedo xaw ma naka la mu ko tuddee sax affaire muy sol nii moo ma neex rek fel fel fel bi mu nga ne ko noonu naa la jox vingt millions loolu la gars yi war a bàyyi dawu doonu de uh-huh. boo ma mënee sànni xeer wala nga bañ maa sànni xeer ñu jox la surtout nga bañ maa sànni xeer bi waaw mais mais dafa am ñoo xam ne mënuñu sànni xeer ndax amuñu loxo mm-hmm. euh, xam nga balaa ngaa sànni xeer nga am loxo Ndiaga moom gisuma ko fu mu sànnee xeer de de temps en na def ay créer seen journaux yooyu wala affaire yooyu. Euh, wala sax seen presse en ligne. Mhm. waaw yoo xam ne saa du du du la rek ay PDF la yuy circulé rek amul papier. non non duñu duñu amul sur papier. alors donc ñooñu xam nga amul benn. gars yi def fi loolu yëpp. Mhm. loo xool yooyu yëpp ba pare bëgg a ñëw fii amee sénégalais yeeg wax ju bëri quoi. Mhm, Vraiment. Mais donc Toussaint Manga a parfaitement raison. Oui. Vraiment d'auditer, je ne sais pas, de de suspendre ces contrats, toutes ces conventions mhm, mhm. gis naa ay nit di si di si euh, expliqué wu naan way man mosoon nañ ma signal dix millions euh, waaye dix millions mu mujjee ma ko laal parce que dañ ma ko waxoon nañ la jox cinq millions bu paree dans dans combien de temps ñu kii entre temps on a résilié le le contrat. Mhm. qui ne laat job promettre na ma vingt millions mais mosuma jox dërëm. Mhm. kii ñëw nee la. ñoom daal ñi ngi wax rek. Ndoura bii le le dernier. oui mhm. mos naa si nekk moom convention de trente millions. mais après bon décaissement xaw ma lan affaire bi yéex ñu si annulé. Mhm. mais vraiment tout ça il doit faire genre audit ba xam ñooñu qu'est-ce qu'il travaille juste pour le Sénégal. d'accord accord ba millions la bi moom. j'ai vu l'enrichissement illicite. Onesmus Sonko euh, ah témoin mm-hmm. témoin tey gis naa ñooy applaudir kii boobu mais je pense qu'ils doivent aussi aller euh, aller au bout de au bout de ça même avec le fonds mhm. parce que li ñuy wax nii ci convention l'ONAS yi. c'est chose qui se passe avec avec le fonds d'aide la presse. oui chose. Mhm. beneen mbir bi euh, ñi ngi koy wax léegi mooy que souvent euh, dañuy fekk benn voix bu discordante euh, Pape Makhtar yore sitam ñu ne kañ ko jënd dem signer ko ay convention mbirum l'ONAS bi loolu lay gën a fësal parce que am na ñoo xamante ne profil entre guillemets opposant nañ te pourtant bénéficier nañu ci bu baax a baax tibb dañu jox nañ la. oui mais moo tax mu ne la ça dépend tout dépend de ta privilégié. Mhm. finalement loolu yëpp la ce n'est pas parce que da am le site le plus lu mais si bu nekkoon loolu. Mhm. kon ñi nga xam ne ñooy joxe les ñooy signer les mhm. balaa ñu lay signer convention mais dañu toog ba xam yow site bi quel est ban audience nga am. yow rajo bi ban audience nga am. yow télé bi ban audience nga am. wala émission bii sax dem ko sponsoriser. Mhm. mais ban émission yi ban audience la am. effectivement ba mu mën ko sponsoriser. effectivement mais ça ça ça c' est vraiment le B à bas de quelqu'un bi nga xam ne da nga bëgg rendre visible ton produit à travers une émission à travers une télé à travers une radio. Mhm. ou un journal. Mhm. ça quand même ça la moindre des choses. da nga war a xam ne kii ñi kan ak ñooy lire journal bi ñan ak ñan ñooy déglu lii ba mu mën ko sponsoriser. bëgg le nombre de tirage le nombre yi mais pour euh, exemple. gars yi lamb bi bu amee. oui boo nee yaaw jaan ak kii ñooy ñooy bëre. tu penses que gars yi nañu dem def seen publicité fële si si promoteur bi. parce que dina xam ne kii du am sax ñu koy xool. Mhm. mais bu ñu nee Balla ak Tapha mais les les les comment on appelle encore là ñoo xam ne dañoo bëgg a fësal seen. seen les annonceurs les annonceurs. mais ils vont se bousculer au portillon parce que xam ne lii ñëpp a ngi koy seetaan nañu gis au moins suma affiche. sa mhm. produit boobu nga doon nga doon reyee fii na ko yóbbu foofu. d' accord. <laughs> en tout cas aw ma lu leer de mais. xalaat naa ne. Uh-huh. convention yi loolu laa signé yëpp boo moytuwul kuddu signé na ko. ñu jox ko ay aux mêmes personnes ah non non kud kay kud kay mu ngi mm-hmm. booy. wax sa kud Lona sport ñetti kii wax nii. <laughs> Euh, jotul wax. kud mm-hmm. Lona sport. kud Lona sport moom ba xam naa ne bëgg nañu mais mënatuñu. mënatuñu mais mais poste mu nekk nii mënatuñu. fay fay ñooñu kay recrutement recrutement bu bëri moo leen di rey. Mm-hmm. mais boo bëggee gis les les vaches laitières dëgg. kud port ak euh, Lonase mu ngoog. Lonase moom comme dañu. non Lonase moom a toujours été une machine à sous pour les. pour les comme c'est une société de jeu. waaw. les bénéfice xaw ma naka lañ koy wooyee sax à la nation ñoom foofu lañ ko téye quoi na na xaalis daal soxla ñu. les bénéfices les bénéfices aux copains. <laughs> en tout cas di la jaajëfal bu baax a baax di jaajëfal Ibrahima Anne di jaajëfal euh, Mame Birame Wathie ak euh, son excellence Georges Nesta Diop di jaajëfal ñu doon topp ci 99 point 0 ak euh, ci page YouTube Walfadjri fàttewuñu loo ak ndiir ak DJ yooyu ñu doon jàppale ci wàllum xarala bi di ngeen leen jox rendez-vous incha allah ci benn